dañuy dem ànd ki nga xam ni moom mooy Mame Ndoumbe ñu dem ca Médina mooy dëkku El Hadj Keita El Hadj ñu ngi lay jaale bu baax a baax a baax sa papa ji nga xam ni moom moo génn àdduna di ko jaale waa Médina yi yëpp ak tous les musiciens donc euh, dañuy dem ci Médina ànd fa ak Mame Ndoumbe ba tey ci sabar biir Médina ak Mame Ndoumbe Médina am ngeen gan ana Ndoumbe ñun nee naa la fi mu ne nii ragalu ñu yoore gën tàppeek Médina moom cetata xoolal li ragalu ñu yoore wax nii nee naa la nag fi mu ne nii euh, tànn béer ñu naan ko Bécaye ah. Mariatine may sa bigé may sa bigé Mara nee naa la yow boo xewlee day neex parce que nag dëgg neexul da ngaa baax yaru nekk ci aar ndeysaan mel ni ku nekku ci aar ndax yaru gi nga yaru yow yal na sa jàmm yàgg bekaay ba tax na tey nee naa la fii dara du yomb ndax seng-seng moo xewle xam nga nag balaa may dem sama sañse xam nga ñun foog ñu ciy jàpp parce que buñ ci jàpp rek du dem daal yii ngay gis nag ah Thianzo sama umpaañ de cœur nga xamante ne dama koo bëgg sama biir xol sama ah. umpaañ boobu nga xamante ne ah. daa jógee États-Unis rek ah jaar Paris <laughs> daal ne ma mam nu mais dama bëgg foo toll rek day def fa mu gën moo jàll ci eh, ci daal yi oh. yëre yi ma sol nag ah Nox sama waa ji nee naa la bi ma déliré valise ba léegi bàyyi woo benn yoon parce que nag dëgg neexul papa. nopp bee fii laa koy arrêté dañ dem ci biir nee naa la tey fii dañuy wekki ñaari peeg tooyal der bi foofu def pëx. loolu ceebu jën bi lay doon loolu ceebu jën bi. waaye xanaa da demoon ci Fallou Fall ak Rexam. booy seen parfum yi xanaa fàllu fàll la waaw lu taxoon ñu ngi doon parfum lu taxoon ñu doon parfum fii lan moo fi xewoon kuy eh eh lan la. maa la bëgg ba muy moom ana sa doomu nday yaa ngi nii toog ana sama jamaa noir maa la wax li maa ngi nii di la tàll sama I love you me too I love you ci mag la mag la waaw Bécaye nag sunu càmmeñ la sunu càmmeñ la sunu mbokk la faramaareen la bokk ci seng-sengi kewe yaa yaawa ma bokk ci seng-sengi kewe yaa yaawa jaaj moo tax ñu wuyu aka waane mooy bébé Diop kii mooy bébé Diop sama fils la sama fils la sabar gaa ngi nii xam nga xale faramaareen bi si xewlee nii rek la mën a mel ak yow mu jongoma bi bëgg noxoy ngom ba mu jeex loolu lay wax ñun ba leneen ñëw waa Adja noonu mu sonn. waaye yow sama doomu eh, eh. xol kii ku yaayam. yaa ñu uuf ñun ñëpp man ak sama doom. te muy dëgg. yow da ngaa baax. lan ngay wax ci sabar bi. kontaan. parce que békaay. ah doom ju yaru doom ju baax doom ju am jàmm. Ah. kii ban coiffeur ko wat ñu tëj. TFM. waaw la wax ci sabaru Bécaye bi. ah Bécaye moom euh, franchement dafa ko nit bu baax yaru am ak ñëpp jàmm donc il faut ñun ñëpp ñu ñëw soutenir ko jàppale ko ci bés bi parce que mérité na ko nit ku baax la. ci loolu. maa ngi ci jàmm. maa eh, de. mais yow eh, Medina yéen sañse ngeen. ah may def damay vacances. ah foog nga nammanti ko say mbokk. waaw loolu la loolu. waaw ah, looy wax ci sabar bi. neex na trop neex na am na maanaam Bécaye sunu doom la moo tax ñu ñëw wii mani Fallou Faye mani Fallou da nga dem saal nag Fallou il est temps nga dem saal Fallou fay ah, tarkal <laughs> dafa jot nga dem saal maa ngi nuyu paa bi nuyul ma Père Mbaye Gueye ah, nuyul ma Thiané nuyul ma Abou Gueye maa ngi leen di kontaane bu baax a baax a baax ayca eh, mam Numbe moo demoon foofu ca Medina.